اي قدم مالي لا احمد ناخذ دك بقى ندير ناخذ فري كام لا خاوي نعرف دي خونا بالي نعرف نكيغو نكيغو ما تاي كان ابو فو ما بس انا نعرف نيكو بس كده نوتك كان ما تدم ماسي نيكو ما قوه لان تعرف بس لان جاي مولي بقى ده لا يصير commencé ko see Fabodou jàpp nañ Fabodou ba yóbbu ko. xale yi bëgg coow am nañ ñaar koñ groupe ñoom am soo ba tey rek war ma ne kenn mënta mooy ñi ñu tum ñu ngay ñëw. ñu ngay ñëw. du xeex. du xeex. du ngay ñëw. du mool yaa ngi jiital takk der di leen xaañi xeer ay biteel di leen xaañi xeer di leen xaañi biteel ah takk der yeeg mool mool yaa ngi jiital takk der yi mel ni ki jiital ay xar di leen xaañi xeer takk der yaa ngi daw xoolal takk der <laughs> barke Rasulullah wala moo rek takk der yi bravo merci beaucoup